لا لا إله إلا الله باي فاي illallah la ilaha sa إله sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu bu baax baax te di la ziar di ñaan sunu boroom mu doon la fee yàggal bu baax ci sa barkeb maam maam Cheikh Ibrahima Fall mi la fi bàyyi ak Cheikh Amadou Moustapha Fall euh, murit yi teew nag ñooy sa alal di alali Cheikh Ibrahima Fall ndax alali seex Ibrahima Fall mooy sa alal ndax yaay Cheikh Ibrahima Fall te Cheikh Ibrahima ñu joxoñoon sa jëmm ji te boobaak léegi nag saa su nekk yaa ngi ñuy xirtal dañu won liggéey bu tedd bi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina moom la doon liggéey ñoom ñii nag tàmbale ko ci Seydina Omar mii di jëwrin ak sëñ Babacar ak soxna Diagne Cissé ñoom ñii ak murid yi ànd ak ñoom bañ jaayantee ba tey ak sa jëmm ji dañoo fas yéene takk seen laxasaay lépp loo nekk ñu nekk ci lépp luñ xam ne sa bëgg la duñ xaar sax faal ba nga leen koy wax tey jii nag ci wàccaayu tabaski lañ xam ne sëriñ baa ci ndax sëriñ bi saa su nekk ndigal li bàyyi ko ci ku tedd ki wàccoon ci maam Cheikh Ibrahima Fall te tey jii mu tegu ci sa loxo gis nañ ne saa su nekk day gën di yees muy ndigalul tabaski yi nga xam ne ku tedd ki moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko waxoon ne ko ne leen Ibrahima Fall lu ca ne ci lu fa ne ciy xar na ko dàq indil ma su wàññee ko jullikaay lu mu fekk rendi ko kon kenn sañu ta yow am tabaski sa kër di ko tabaskee te du dalaa indil am tabaski ba noppi loolu moo waral nag ñu jaayante ñoom ñii ne dañuy indi ay tabaski niñ koy defee saa su nekk ci ndog yi di ko defee ci liggéey yi ngay santaane di ko defee ci lépp loo xamante woote nga noonu lañ fas yéene jaayante laxasaayu kenn du leen ci man waaye nag faal ñu am tawfeex ñoom ndax tawfeex ji ñu am mooy dañoo dàkk ne lim biñ fa séenee indil sëriñ bi nañ ko teg ca lim ba Cheikh Mouhamadal Fadal santoon Cheikh Mour Moussa Fall sa way juróom ñu 66 xar juróom benn fukki xar ak juróom benn yi nga xam ne sëriñ Fall lu mos na koo sant sëñ Mour Moussa Fall ñu ne ñoom ci lim boobu lañ fa séenee tàmbalee tey lañ ci jublu nag mooy ñaan ci barkeb Cheikh Rafal nga yàgg fi loolu te ñaan ci barkeb Seex Mourou saa Fall nga yàgg fi loolu tamit waaye nga ñaanal leen ñoom ndax seen yéene ak seen pas-pas mooy lépp loo joxañ kenn du leen ca man te loolu mooy liñ jaayante ak murid yi murid yëpp seen xol nangu na Fall xam nañ ne yaa fi ne te yaay Seex Ibra Fall te Seex Ibra da ko waxoon te it nag maam Seex nee na ki fi toog di man su diglee def leen su teree ba leen su laajee jox leen su wootee wujj leen ndax Seex Ibra nee su xamul ma xamal ko su amul ma amal ko su mënu ma mënal maay fayte du ma jeel loolee nag bañ ko xamee ba tey jii dañoo am yéene amatuñ sago benn yoon ngir sab joxañ saa su nekk kenn bañ leen cee man moo waral nag tey jii ñu tànn 66 di ab lim ngir indil la ko tey lim boobee itam dañoo yéene ñaan sunu borom mu yàggale la fi lool te wéral la ba li nga naal ci sa liggéey maam bii naal ko ci sa liggéey wajuru Cheikh Moussa Fall nga yegale lépp liggéey bii ñu nekk mooy stade ba ku ne xam na ne ñoom saa su nekk ñu ngi fa yéene joxañ boo ca joxañ mu jëm ci dund beeg lu ne ñu jaayante loolu itam ñu ngi ci bu baax a baax a baax te loolu ci nekk sëriñ Maguette ak sëñ Omar mën nañ ci am seede ñoom itam ñu ngi wëlbatiku di sant nag ak a ñaanal sa ñaari jàmbaar yii muy sëriñ Maguette ak sëriñ Omar ak sunu baay Cheikh Mbaye mii ak kilifa yi nga xam na ñoo ne ci sa wet ñuy say doom ndax saa su nekk ñu ngi leen di soññ ci liggéey bi saa su nekk ñu ngi leen di gën a xertal ci jëmmi Cheikh Ibra Fall ji saa bu ñu ñëwee fekk leen fii rek dañuy gën a jaajuwaat xam ne ñoom ñi ay jëwriñ la ñoo ne seen kanam Fall daal kàddu yooyu lañ waxoon ne bu ñëwee danañ ko jottali noo ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wér di ñaan daal lépp luy sëg bëgg yàlla nañ ko man ndax yéene nañ lépp loo bëgg bala caa kenn na de jéem dara ñoom fekk ne ñoom dañuy dañuy def sag bëgg ndax saa su nekk sag bëgg rek la ñuy xeeñtu te soo leen kàttanalee liñ bëgg danañ ko am ndax xam nañ ne fii jamono toll ku xam dara wala ku am dimbal dana wax ak yow Fall ndax Cheikh Ibra Fall ne woon na wax leen man doom te tey yaay Cheikh ñoo ngi ñaan yàlla nga yàgg fi loolu te wér loolu mooy seen i yéene li ci seen i xol lépp kenn mënu koo jottali waaye daal lii ñu fas yéenee jëf ànd koog yow tàmbalee ko ci bañ jaayantee ba tey lépp loo joxañ ñu fas yéene caa nekk fas yéene ñoo teg seen laxasaay benn yoon ñoom ñi ngi nii sañoo bara ngi nii lekk tut naanu tut sëñ Babacar a ngi nii ak murid yi ñu àndal soxna Diagne Cissé foo leen fekk guddeeg ak bëccëg suba ngoon ci sa bëgg rek la ñuy dox kon nag soo leen ñaanalee te xam nañ ne teg nga leen loxo ndax ñi ngi jëf loo xam ne ñoom xamal nañ seen bopp ne mënuñu ko amuñu ko waaye yaa ci feeñ moo tax ñoom xam nañ ne li ñuy def lépp sa alal rek fàll lañ lay indil sa sa alal rek lañ lay indil dafay mel ne loo xam ne yaa ko denc ci ci barab ne leen dem leen jëlee leen ma ko dara du ca manque dara du ca yées dara du ca gàllankooru saa su nekk luñ joxañ ne moom lañ lay indil loolu la ñu mën saa bu mbir xewee ñu ne ñun sasoo nangam te ñàngam loolu bu ñu koy sasoo du fekk mën a seeni poos duñ ko yaakaar ci kenn waaye sa kattan la ñuy doxee ba loolu sotti kon nag Fall yàlla na fi yàgg te wér sëñ Maguette yi am solo lool di gën a ñaan sëñ Cheikh Jëmb Fall yàgg ndax yàggam fi rek mooy suñu njëriñ sëñ Maguette li li may wax te di ko wax adduna gépp suñu maamu ko wax naa la ko dama bëgg ñëpp xam suñu Cheikh Jëmb Fall te xam ne euh, jamono yi nekk mooy borom jamono lu mu dégg dana faju loo ko bëggal tamit dëgg ci yow dana am bi bañ koy tàmbali ñaar dërëm yoruñu ko naa yoon yoon suñu ma ngay ne ko dana jag dana baax lépp yombul na te koro bañ koy jëli ñëw ci yoon wi ay pël traversé yoon yor fital di traversé koroog ñi ñi jiitu ñun oto bi ñu topp dañ leen dóor ba gaañ leen Cheikh Ibra Fall mi dawal waa ji daw ak ñe bu leen àgg ëpp leen ne fee mu ne ko dara jëy moo fi uboo rek ànd ñett cooto bi gars yi yori fital waaye lay teew fiix gis ñu pël ba léegi ñun bi ñu agsi ñoom la ñoo daw kon loolu moom kàtt na te bu fekkoon am nañ genn sikki sàkk dañuy dañuy dëpp dañuy dëpp ñu tëddiwaat daan dem suba waaye ñun wóolu nañ ci xam nañ ne ñun bu gaynde taxawoon ci yoon wi ak i jaan ak lu mu mën di doon tam digal ñu kenn mënut ñu jàll ndax dooleem la ñuy doxee Fall nag daara jaa ngi nii si ñu waa réew mi ak bitim réew xam na li war si ñoom mooy wërsëg bu ñu ko gaa yi joxe nañ ba jeexal ma bëgg mu def si ñoom loo xam dootuñu jeexal faw ci daara jii Serigne Cheikh Jëmb Fall képp koo xam ne topp nga ko te nga xam ne mu wér. defar ko yokk nga ba jëm yokkin woo xam ne am na tàmbali waaye amul ab yamukaay su dee dëggal nga ci sëriñ bii. loolu kenn wérantewul ndax kenn ku ne ci bi ngay door ci sëriñ bi am na noo xam ne xam na ni nga xamee ne noonu la lañ tàmbalee woon sëriñ bi fii mu yëg si tamit ku àndak moom ci fi mu yëg si xam nga tamit fi nga toll kooku nag beralu ma ko kenn muy ab sëriñ lay doon muy dongo mu ab seex loolu moom lu wér la ndax ñun mu ñuy seede ci sëriñ bi dañuy dem ba yàgg sax nit ñi mën nañu wax ne xanaa li ñu ci sëriñ bi tax waaye ñun xam nañ suñu bopp bu baax xam nañ tamit ñi nga xamee ne ñoom la yàlla dogal ñu ànd ak sëriñ bi te mu wér yéen nag da a def li ngeen war a def te waru leen Cheikh Ibrahima Fall ndax ñàkk a war Cheikh Ibrahima Fall weesuut que ne waxuma la li ñu Cheikh Ibrahima Fall defal ba ñu am ndimbal man man dara wala bu ñuy xam dara wala ba am xam lenn lu ñuy def ngir mën a jariñu mënuñu ko woon fay ci loolu rawatina nag mu yombalal ñu lenn muy ñëwal liggéeyal ma te loolu mooy Cheikh Ibra Fall ñu di Serigne Cheikh Fall Jëmm kon yéen bu ngeen ñëwee ci jamono yi Serigne Cheikh Fall Jëmm nga xam ne seen ab cër la mu nangul leen lii nga xamee ne moom mooy liggéey bii ngeen di liggéey ngeen xam ne tur bii ngeen tudde seen bopp kenn génnu ci ndax képp kuy dox tey fi mu ne nii di murit rek alalu Cheikh Fall ak buntu kër boo man di nekk rek yéen nag cër boobu suñu borom cërale leen waaye bi mu leen ko cëralee ba noppi nag da ngeen koo xam xam gi nag mooy nii ngeen doxe nii ndax diir bi ngeen xamee ne jaayante ngeen la saxaaba yi defoon rek def ngeen lu raw lool ndax loola ndax saxaaba yi dañoo joxe woon seeni seeni deret ak seen njaboot yéen nag lépp ngeen joxe seen jëmm ak seen lépp da ngeen koo joxe ba mu jeex takk ndax sëriñ bi du jeexal waaye ki xam ne sëriñ bi du jeexal moom moo dul fa dul jeex ci moom ndax nit ki mën ngaa wax loo xam ne doo ko gëm te bëri na lool waaye sëriñ bi moom yamut fenn Cheikh Rafal daf ñoo yóbbaale woon ca waxam ji ca Mbàkke Kajoor boo gisee mu waxoon sëñ Touba ne ko lu mu amut ci yow la mu ne ko loo fi amut ci yow la loolu mooy dox ba léegi nii képp koo xam ne tey jox nga sa bopp sa kilifa xamal ne foo yem rek yaa fa yemale sa bopp rawatina Cheikh Ibrahima kon yéen bu ngeen doxee nii na ngeen xam ne da ngeen am cër ci Cheikh boo xam ne kenn wérante wutoon ne waxtu sëñ euh, sëñ Cheikh Jëmb muy ayam jii nii bu ngeen yëgsee da ngeen ci liggéey liggéey boo xam ne àddina bi yëpp dana leen dana dana leen dégg da ngeen cee toll ñun nag dañuy seere ci lépp nag ndax seen ak ndorte ba waxtu wii ngeen toll amul benn jimmi jamono ngeen ñëw fii te gisu leen seen i jëf seen seeni seen i soxla te soxla yi nag doonul benn soxla boo xam ne seen soxlay bopp la. ngir lu ñu liggéeyal sëriñ bi rek saa bu ngeen ñëwee yéen ñii nga xam ne yéenay alali Cheikh Fall te suñu Omar nekk ci bopp bi lu ñu liggéeyal sëriñ bi rek noonu ko sëñ Mamoun waxee léegi nag moom moo nekk ndax la waral loola mooy saa bu ngeen bu ngeen ŋaddee ñi amul pas-pas moom dañuy dañuy yokkat ndax dañuy jàpp ne munta ne waaye foofa ngay xamee sëriñ bi yow bala ngaa mën a xam sa dooleeb sëriñ da ngay yenu loo àttunul dañuy téeméer kilo day nekk ñu wóorale na mënoo yenu ñaar fukki kilo nga ne leen yen leen ma yen leen ma téeméeri kilo yi waa ngay door a xam ne sëriñ bi moom saa boo dee jëm ci moom léppay woyof toy yéen kuy wax ci yéen sax euh, dañuy dem ba yàgg dañuy xaabaabal ci leneen ndax kon day mel ne dañuy bew ndax sëñ Mamour jeexal na wax ji ndax dafa wax ne alali sëriñ bi la joo xam ne dafa tege nee ngeen di ay ndawam mu leen jóg leen ngeen jëlale li ma sama alal ji nangu gi ngeen nangu nag moo waral dara du jafe su ngeen amoon deng-deng du tee sëriñ bi li bëgg dina ko am te du ngeen ci doon dara waaye nangu gi ngeen nangu moo waral sëriñ bi fu ngeen dënmal rek mu bil leen bunt yi leerale leen ko na ko bëgg ngeen amee ko ñu ne yéen a lépp moom la. loolu xam nañ ko bu baax a baax boo gisee ma ne am na wax yoo xam ne suñ ki continuer di wax day mel ni bew te ñun waruñoo bew ci kanam sëriñ bi ndax moom moo moo ñu dàqa dox téeméeri junni yoon moo ñu dàqa li mu li mu am ci ay ngërëm ñun tàmbalee guñu kon nan gën a rafet yot bu baax te gën a jaaju yéen de seen liggéey bii kenn werantewul ne sëñ Tuubaa nangu na ko ndax mooy Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nangul na leen liggéey bi sëñ Moussa Fall nangul liggéey bi Cheikh Ibrahima Fall nangu liggéey bi sëñ Tuubaa nangu liggéey bi fa mu jëm rawatina yàlla ak yonent bi kon na ngeen gën a rafet njort ndax bu ko nangu wutoon lenn dong moo ciy seede bu ko nangu wutoon su ngeen jógee di ko toppatoo du yomb te yow xam nga fi nga jaar ba nga xamee ne ni nga ko bëggee nga amee ko noonu ñun nangul la nag lépp li nga xamee ne noonu nga ko noonu la war a demee mu war a ñëw bu yàgg nga am ñoo ñeewante ci sëriñ bi ne li ma mooy téyel ko sëriñ bi. ndax bu teelee yëg si xont beeg yooyu dana ko dana dana xaw a métti ci moom loola nag xam ne yow lii nga xamee ne mu yàqar yéen a bokk borom moo waral nga ne kon na fi ne kon sëñ bi nangul na leen liggéey boobu noonu ngeen gën a góorlu bu baax a baax ndax sëriñ bi dafa ne jaajëf jaajëf boo gis ab soññe la waaye yéen na ngeen rafet njort. ndax nangu seen nangu seen liggéey moo waral ngeen def li ngeen war a def dajale ko bam ba mu sont mel na mu war a mel ngeen ñëw ba mën koo jébal sëriñ bi te benn laatuf amu fi ndax sëñ bi bu ko neexoon wala leneen dugg ci da bu ngeen di ñëw na ngeen koy war a bëggee du ngeen ko amee noonu te lee ku ko seen xolom xolam dana sedd bu dee ku baax ñun de rafetlu nañ ko rafetlu boo xam ne day dañuy ñaan day lii nga xam ne mooy li li li nga xam ne mooy tuyaabay tabaski rek rek rek yàlla na tàbb ci seen kaw rawatina ngërëmal sëriñ bi nag rawatina mbégam sëriñ bi na ngeen gën a rafet njort te gën a góorgóorlu léegi li sëriñ Mamour wax rek da ngeen a jaayante te dëpp leen la la mag ña daan wax naan du nu dëpp du nu daay te dootuñu dellu ginnaaw loola moom mu ngi ci yéen te loolu ñun xam nañ ko ndax bi ngeen jaajoo lu weesu ci yi nga xamee ne mooy li li nit ñi li nit ñi teg seen bët muy mbaar mi bi ngeen ci jógee da ngeen a ŋàddeeku liggéey bii fi mu ne nii dox bi ngeen ci dox dafa jéggi dayoo am na ñoo xam ne fi ne dañuy jàpp ne sax xanaa yéen ay jinne ñoo leen di jox xaalis waaye déedéet Cheikh Rafal moo dul jeexal xam na Cheikh Rafal da leen a dugal ci biiram Cheikh da leen a dimbale ci liggéeyam ba li ngeen bëgg dangeen ko am loolu ngay wax ne loolu ngay wax ne wërsëg loolu moom euh, jafewul sëriñ bi am am jafewul sëriñ bi sëriñ moom dana def lu ngeen bëgg aajo jooju dana faj muy biir nag ak bitti ndax dafa am loo xam ne bu bëree sonol borom bu bëree dana demee neneen noo xam ne dootul méngooti ak la nga bëggal sëriñ bi sëñ bi moom dana pajum aajo la leen di defal moo gën a gaaw du ngeen ñàkk de waaye du ngeen yor ab jal moom moom na ngeen ko xam moom ñàkk moom du ngeen ko def lu ngeen bëgg suñu borom dana leen ko defal waaye du ngeen yor jal boo xam ne day keneen yoonam dana ci ne loolu na ngeen rafet njort baax ñun daal suñu xol sedd na xamuñu lu ñuy wax sax ndax lu tax xamuñu lu ñuy wax mooy suñu xol dafa sedd guy ci liggéey bii na ngeen ñu dimbale nag ba noonu ko seen Mamour waxee ak ni ngeen ko waxee noonu lépp nañ ko delloowaat sëriñ bi mu yàgg fi te wér lool bu ñu jox koy ati at te dana am bu déwénee danañ toogaat fii jébbal ko liggéey bi waaye nag liggéey bii rek mën naa defar àddina bi yëpp ndax li tax loolu mooy daa am loo xam ne ku yàlla gërëm ku mu gërëm nga am gërëm waaye na nga xam ne am na ñoo xam ne seen ñaan du wàññeeku te lu ñu ñaan suñu borom dana ko nangu te sëriñ bi fii mu toll nii moom weesu na foofu ñaan dong rek déedéet lu xelam dem dong suñu borom faj faj aajo jooju noonu kon seen liggéey bi lépp luy tënk-tënku àddina ñoo ngi koy ñaan ci sëriñ bi ci doole sëriñ bi tënk-tënk yooyu deñ lépp luy jafe-jafe ñoo ngi ñaan ci doole sëriñ bi ak jafe-jafe jooju deñ na na ñëpp am jàmm na ñëpp amay xéwal na ñëpp wér ci seen doole liggéey bi nag laa koy ñaan ci darajaay sëriñ bi jërë ngeen jëf suñu xol sedd na guy nag jërë ngeen jëfati sëñ Mamadou jërëjëf waaw lépp jàpp Sëñ Mamour sëñ bi dafay wax ne am nga ndigal ci jëm yi muy alali Cheikh yii nii lépp loo xam ne war nga koo yaatal ci seen liggéey wala lépp loo xam ne tey fim mu ne nii lu ñu war a def la nee na bëgg na nga ànd ko ak ñoom defe ko ni nga xamee ne noonu la ko bëggee ndax loo leen defal rek jëmmam ji nga ko defal rawatina Cheikh Fall mi nga xamee ne moom lay liggéeyal nag jërë ngeen jëfati fa.

mu dolli ko fa yàggal baax te dolli ak wéram waaye ñaane ko sunu jàmbaar ji Serigne Cheikh Fall jëmm di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér nga xam ne fii ci biir këram tey la ñuy àddoog yéen waaye ak kuréel gu am solo gi nga xamante ne bi ay jàmbaar lañ ñëpp xam seenub yëngu muy alali maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina defe naa ne ku gis jëmm yi ku ci mel ne jëwrin Euh, ki nga xamante mooy Serigne Omar Seck euh, man na bu ñu ko tuddee rek mu yóbbaale mboolem murid yi mu dendal yëpp nag nga xam ne ràññe nañ leen bu baax a baax ca liggéey bu tedd bi waaye soxna Diagne Cissé nag mën a yóbbaale soxna yi moom itam di jàmbaar lool ñii ay jëwriñ yoo xamante ne bii ñoo ànd ak murid yi nekk ci biir réew mi ci bitim réew di ay jàmbaar yi Serigne Cheikh jëmm yoo xam ne joxañam rek lañ topp xam ngeen tey jii dañoo ñëwoon nag euh, ci àjjuma ji ngir jébbal seeni i euh, seen i taba seen i tabaski tabaski yi nga xamante ne bi ñoom lañ sasoo woon waxoon ne ba ñuy waajal tabaski yi ñu wax ne danañ jox sëñ bi 66 xar yoo xamante ne bi ngir euh, lim bi nga xamante ne bii Cheikh Modou Moussa Fall moom la ko Serigne Fallou sa sas ci ak am tabaski buy waaj mun ne ko wutal ma juróom benn fukki xar ak juróom benn Eh, juróom-benn fukk ak juróom-benn yooyee ñoom lañ jaayante tey na lim boobee xam naa ne mbir la la tax sëñ Fallou taamu woon ko ci Cheikh Modou Moustapha Fall ñu ne tey lim boobu nag la taamu ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Fall jëm di maam Cheikh ne bii Serigne Mëgëy Ñang ko fi eh, di ci ziar bu baax a baax na Serigne Omar xam ne saa su ne da leen di sot bi lépp luñ joxañ ci Serigne Cheikh Fall jëmm rek Serigne Omar fexe ba ñaqam tàbbi ca loola ndax xamal nañ saa su ne da leen di xamal ne leen li ngeen di def ñun jëm koy defal ndax fii nag fi nekk guddik ba subaa ngoon ci sëriñ bi kon lépp lu ngeen defal sëriñ bi ñoo ci war a jiitu waaye xam seenu njàmbaar seen pas-pas moo waral boo déggee kàddu yi eh, sëñ magey ña nga xam ne amul sago ci yéen parce que dafa teg bëtam nag ndax xam nga nag am na lu ko ko gis wolof ne ko gis nen ne nena ngi waaye nag tey nag moom ñëpp a mën a seede ci ne la ngeen waxante woon a sëriñ Cheikh Fall jëmb def ngeen ko te nag lu ngeen mas a wax rek def ngeen ko kattan gi nga xam ne moom la leen sëriñ bi roof ba lu ngeen dëgmal loola sotti ndax àddina bépp na ngeen jaaxal Seydina Omar ndax li yéem mooy fi jamono tolloog eh, a wax sëñ jaaxal am na ñooñu leer dañ naan waa alali Cheikh Ibra ku ne ci seen gannaaw am daam ku ne seen gannaaw mu ne waaw d'accord am na ñu ne seen gannaaw kay Cheikh Ibra ne seen gannaaw waaw mu leen di puus te yéen koo leen xam-xam ne Cheikh leen di puus te maam Cheikh kum puus nga dem ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla na yàlla kàttanal leen ba seen pas-pas ak seen yéene ak ni ngeen ko bëggee saa su ne ngeen ko ne amee sëñ Omar tey bu ngeen ñëwee jébbal sëriñ bi li mu xar yi ba pare di waajalaat yeneen i xar yoo xam ne nag moom la sëriñ bi di tabaskee moom gannaaw bu ngeen sotlee sëñ bi nag ci lii nga xam ne sasoo na ko di ko jox ki fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim muy Cheikh Mamadou Mountakha te lim bi sangee ba noppi mu war ko yóbbal jubal sëñ a am sañ-sañ mën a yeew am xar këram gannaaw ba mu joxee la sëñ bi lay dem ci sëñ ba noppi la ngeen ne lool it ba tey da ngeen ci fekk sëñ bi yéen daal sotle ngeen sëñ bi ci li muy yóbbu ab sëriñam waaye du ngeen ba sëñ ba tey de da ngeen koy sotle ci li muy yeew ci biir këram loolu lépp ngeen sasoo ko ban yëg-yëg ngeen ci am sëñ ñu ngi lay sant bu baax di lay jaajëfal di jaajëfal waa alali Cheikh Rafal yëpp euh, euh, sëriñ bi day kenn te kenn moom dama mas a dégg ñu ma naa joxe ba jeexal bas biir euh, tabaski googu amul lu ñu tabaskiyee comme nag moom mas naa joxe ba jeexal ba amul lu ñu ñu ne nag ñun bi àlali Seer comme judd nañ ci kanamam saa yu ñu ko joxatee tabaski nañ ko jël ay tabaski jox ko ngi bisam boobu te loolu yëpp la war loolu la. tubarkalla alhamdulilah fi ne nii nag bu ngeen ci lii lan ngeen di waajal. Euh, bu ñu noppee ci tabaski yi fi mu toll nii xar yi tabaski yi nga ko war a jox sëñ bi moo war ñu ngi waajal xar yi tabaski yi ñu ko war a andil moom tolaat ci lim bu fi jógee ñi ngi war a àggale suñu mbaar eh, fi fini soné ko ba mu mel na war a mel teewul nag ñi ngi ci ndigalul liggéey ko bi ci stade bi newoon ceeb bi ak matt mi ak ak ak ak keccax bi ak eh, géej bi matt mi si moo koy wut saa su ne ceeb bi fukki fan juróom yu ne dinañ yóbbu tonn ceeb ak kabiyo matt ak keccax bi fi doon nii loolu moom du dàkk ak la cinq yeeg yëpp ñu ngi ci ak saa lan ngay soññ murid yi xanaa ñu takkaat laxasaay te wuti sëriñ bi rek te xam ne jamono ju ne daa am ko moom mm-hmm. jamono ji si see jëmba moom te li gën a li may wax ne moo bokk na ci pertement bokk ak borom jamono te liggéeyaloo ko dara ñun nag bi ñu xamee ne sëriñ bi ala jamono Cheikh Fall ko moom moo war a ñu fas yéene takkal saay liggéeyal ko ba kawe ñuy faatu ñu ngi soññu murid yëpp ci liggéey bi di leen ñaanal tawfiix ak jàmm saam Cheikh Fall di wax ne nañ ñëw ñu ànd liggéeyal Cheikh Fall ci Sëriñ Cheikh Fall jëm Fall jërëjëf. Soxna Diagne Cissé eh, ana soxna yi. waaw euh, bisimilah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu euh, maa ngi leen di nuyu euh, mboolem waa daara ji waaye di jiital néew bi ak ziar bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall yàgg fi lool ci ànd ak waaye di ziar bu baax a baax. mboolem waa daara ji eh, ci njiitu Seydina Omar Seck Nourou Daarayni général Mouride mag na ko waa daara ji waaye yow Serigne Mamadou Ndaw Baye Fall ñu ngi lu fu baax si jamono ci soxna la bàyyee ko suñu royukaay mooy soxna jaatulaay maam Mariama Bousso waaye soxna Seynabou Ndiaye comme euh, yooyu nga xamante ni ay jigéen yàlla lañu euh, nañu roy ñoom jamono ne waaye di liggéeyal Serigne Cheikh Fall jëmb moo ñu war euh, ci tabaski bi Serigne Mamour Ndaw Baye Fall barkalla jërëjëf soxna Diagne Cissé gis nañ njàmbaar gi ak pas-pas bi mooy mel na ni tey da ngaa teewaal ñu soxna yu bëree bëree bëri lan ngay soññ murid ji nag fi mu toll nii rawatina jigéen ñi ak góor ñi nga xamante ne bi ñu ngi ci biir daara jërëjëf sëriñ Mamour Ndao euh, Baye Fall euh, ci laaj bu am solo boobu jigéen ñi moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam mag la moo xam ndaw la li leen soññ mooy nañu fexe dëgg ma liggéeyu sëriñ Touba ñaari jëmu kenn te xam ne moom moo moo ñu war suñu ko defee moo ñu war bu ñu ko deful moo ñu war ndax àdduna amul solo te àdduna dafay jeex liggéey bi Serigne moom moo dul jeex ndax yàlla tere boo kuy liggéey Serigne ba génn jamono say sët dinañ ñëw wéyal liggéey booba ku ci wet di ñu ñëpp kenn ku nekk bu sa maam nekkul woon di liggéey Seeraama Fall murid bu mag ba sa sa wala sa wajur bu nekkoon na foofa kon nag nañu tënk foofa fexee nosu ci benn buum liggéeyal sëriñ bi wërsëg bi bu ñu ko suñu borom di jox ñi def ko ci sëriñ bi nga xam ne ko defu ci àll bi sëriñ bi ne nga def ci dibéeri firaw kon nañu jël euh, li ñu am lépp boole lu ñu lu ñu amul bu ñu amul màjjaali def ci liggéey bi sëriñ bi loolu moom moo ñu war rawatina ki nga xamul nañu liggéey muy sëriñ Cheikh Fall Diém kon maa ngi soñu góor yi waaye maa ngi soñu suñu mbokki soxna yi ñu takku bu baax takkaat laxasaay te xam ne ndawtal yeeg natt yi amul njariñ nañu fexe li am njariñ mooy liggéey bi sëriñ bi lu ñu am nañ ko ci def waaw lu ñu am rek tubarkal la kon xam naa danañ fàttali sax murid yi numéro yi mooy numéro compte yi danañ ko bind ci titre bi incha allah tubarkal la sëñ Babacar yow de saw nga bàyyi ko. waaw wér na kay euh, ndeysaan fu ngeen toll fi ne. waaw waaw comme ni nga ko gisee rek mel na ni jébale nañ liggéey bi ba noppi euh, ñun kàddu xam naa kàddu yi ñuy jottali rek mel na ni ni ko soxna soxna Diagne waxee ak sëñ Amar jot na sëkk waaye dañuy jottali kàddu cant waa daara ji eh, ci taxawaay bi nga xamante ni taxaw nañ ko taxaw nañ ko taxaw nañ ko ci ba bëggu sëriñ bi am ci nii ñu ko defee nga xamante ni juróom benn fukki xar yeeg juróom benn taxaw nañ ci taxawin woo xamante ni wane nañ ni sëriñ bi jaral na leen jaay jaral na leen ci ni nga xamante ni ci ko xam doxin bi liggéey bi nu mu doon doxee ñoom firndeel nañ ni sëriñ bi jaral na leen te it firndeel nañ ni ci dox ci nii ñu ko defee doxee nañ ci doxin woo xamante ni nii eh, li sëriñ bi waxoon ku ko def ku ko defal loo mën mu defal loo mënul ko defal loo mënul mu defal mu defal loo jom ñoom nag def fexe nañ ba ñu ngi fexe di def jamono ju ne di defal sëriñ bi loo xamante ni mënuñu ko te xëccu gi nga xamante ni xëccu nañ ko ba ba lii am rawatina si jamono jii firndeel na ni ñoom jeexal nañ tàkk tàkk tàkk si nii ñu ko defee kon nag ñu ngi sant ñu ngi sant waa daara jëpp jëpp jëpp képp koo xamante sa numéro mi ngi si daara bi ñu ngi lay ñu ngi lay sant sant xol waaye cant googee nag du ko dugal ci biir sant sëriñ bi ak ngërëmam di wax ni suñu sedd na ci eh, képp koo xamante ni sa numéro daal mi ngi si daara bi eh, jërëjëf sëñ Babacar eh, nee na ñu ngi sant képp koo xam ne sa numéro mi ngi ci biir daara ji rawatina nga di ci jëf saa su nekk itam di wax na rek daara ji nag ni ko sëriñ bi waxee léegi rek daara la joo xamante ne bii jëfa ko tax a jóg na bañ na ko ba dañ koo sos ngir jëf jëfal sëriñ bi sot la sëriñ Cheikh jëmm ci liggéey bu tedd bi kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di ziar nag mbokk média yi ñu àndaloon mooy caméraman yi ñu jàkkaarloon eh, di ci bu baax a baax Assalaamy TV xam ngeen ne di ci ziar bu baax suñu jëwin Fallou sëñ Fall El Hadj Fallou Sylla eh, di a baax a baax nag sëñ Fallou Gala Sylla waaye eh, di ziar bu baax a baax nag waa Daaru Bayre TV ji ay jàmbaar lool di jaajëf baax sëñ Mourtala Eh, di jaajëfal bu baax a baax nag eh, sëñ Aline Badara Ndine ngi fi doon xaar murid yi ba ci guddi gi ndeysaan waaye mu ngi nekk xam nga moom noonu lañ koy a fee rek su <laughs> a jàppandi di ko ak mbokki waa di woon waaye ndigal li yeesaat na nag kon ñu nag leen jaajëfal bu baax a baax kon di dem ak Serigne di leen bàyyi Serigne bi yàlla nañ mucc ci ndog te forub dog barke kookee Mmh.